jërë ngeen jëf honneur ak grandeur bu ñu leen doon wutal aw sant tey jii si sàkk amul ci ne Sall lay doon dogal bi mu jël démb jëm ci ne moom ci élection a kay xëy di waxtaane Soleil national xëy di ko tàcc ak di ko tagg Macky quelle grandeur bi ñuy laam-laamee ci réew mi l'observateur xëy na ci dikkaat ak ñun mu di dogal bi ma jël xool ko càmbar ko settantal ko biir ak biti mooy du doon candidat ci élection élection présidentielle yu 2024 yi ko mu ngi ñuy xamal ne président Macky Sall dugg na ci histoire ba faaw la seen ne ko romb na ko kilifa yi naw seen jikko di leen waxtaane fu nekk ci àdduna bi fa ñu toog foofee la président Macky Sall toog jamono ji Macky Sall mu teg ci suuf waxi troisième mandat journal l'info li mu ci jàng naataange moo di moom Macky Sall ci buntu bu mag bi mu jaaroon ba jot ci bopp réewum Sénégal ci buntu bu mag boobee ca lay jaaraat ngir génn day dem journal bés bi le jour moo ko bind ci xëtamu njëkk direct news nañu Macky Sall bokkut ak kilifa yi nga xam ne dañuy signaler gauche ba ñëpp ne noonu la ñu jaar droite ci la ko jox mention très honorable son excellence Macky Sall mu boot ci tapis ko buntu palais bi photo boobee ci xët mu ci bind ci ngor ak match gi mu jote woon ci réew mi ci noonee ci la ko Macky Sall di Macky par la grande porte réaction bu Youssou Ndour bu Omaro Sissoko Embalo président bu Guinée-Bissau ak bu président Issoufou ñoo ngi ci biir enquête yeneeni réaction yu yeneeni kilifa ci beneen bu yéenekaay mooy ci Sud Quotidien yëral xët mu njëkk yéenekaay bi kàdduy Khalifa Ababacar Sall mu fay xamle ne ak lu ñu mën di wax dogal bi Macky Sall jël mooy dogal bu baax bi neexi tubaab di Abdoul Mbaye njiital parti ACT dolli ñu ci ne Macky Sall mi woon 2012 te réeroon Maodo Malick Bay ba waxtaan mu a mën a wax ba wax leen di ndaw yu bokk ci convergence des jeunesses républicaines di waa COJER bi ñu rafetloo taxawaayu président Macky bi Moussa Sow ak ñi mu àndal di waa national nee nañu tey la ñu a booloo doon benn taxaw ci wetu seen leader di président Macky fu mu joxoñ fa fa la ñuy xool fu mu jëm ñu ànd fa moom moom rek la ñuy déglu moom rek la topp ndax moom rek la ñu gëm boroom gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany di ñuy wax ci xët mu njëkk journal Tribune Macky ak jéego bi mu teg démb mu di teg ci suuf waxi troisième mandat moo gën ci moom gën ci réew mi ndax dina tax moom Macky mu dugg ci histoire waaye dina sauver réew mi Bougane Gueye Dany ne dogalu Macky Sall bi kenn rek a ciy gagné muy démocratie bi ci journal Le muy dogal bu ñëpp di rafetlu waaye il faut mu bàyyi ñëpp bokk kinki euh, li si gënoon a fës nag moo di dogal bi président Macky Sall jël démb ne du bokk sélection présidentielle yu atum 2024 ak lépp loo xam ne nag dégg ngeen ko si di ay kàddu yoo xam ne ay waaye politique yëkkati nañ ko féete si réew mi wala sax féete ci bitim réew loolu na sax la ñu fas yéene waxtaane si penco yi nga xam ne njiitum réew mi Macky Sall yëkkati na ko démb bi muy wax ak askan wi si la jaaree xam ne nag moom du doon candidat si élection présidentielle yu atum 2024 bile décision nag président Macky Sall xam ne ni xalaat na si bu baax xam li si nekk ak njeexteel yi mu mën a am te dafa jël décision ñàkk bokk donte constitution bu Sénégal mayoon na ko mu samp ndëndëm jëm si yooyu la élection présidentielle ñu ànd déglu kàddu yi nga xam ne nag njiitum réew mi Macky Sall yëkkati woon na ko démb. réew mi suñu coalition war nañu am bu ñu ànd nekk benn. Ah, teg équipe yoo xam ne si dinaa leen jàppale itam ni ma leen war a jàppale ci waxtaan ak waa réew mi ngir ñu moytu li nga xam ne dana tax Sénégal saaraan ëllëg dugg ci guuta goo xam ne du gën ci njaboot gi du gën ci askan wi. kon sant naa ñooñu gërëm naa leen waaye nee naa nag élection yi di ñëw bind naa ko ci livre bi ñu tuddee le Sénégal au cœur Sénégal sama biir xol boo na ko gisee di ngeen wax xam ni ne woon naa mandat 2019 bi mooy nekk sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que ma ci droit loolu sama décision bopp la te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat donte nag gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président la République dafa bëgg a def ñetteeli mandat dafa bëgg a def lii dafa bëgg a def la loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind 2018 dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñaawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew. ah nit ki booy wut tam da nga ciy boole ngor. parce que loolu dafa am solo. li ci des mooy ñu continuer suñu taxawaay ci réew mi. continuer waxtaan ak ndaw ñi. jamono ji président Macky Sall di yëkkati yile kàddu nag fi nga xam ni moo di permanence bu APR nekk si Mermoz dafa feesoon dell ak i te teewoon na fi itam ki nga xam ni moo di première dame di Marième fay Sall ak cadre yu bari yu bokk si coalition benn Bokk Yaakaar bi kàddu gi jibee nag ñenn ñi di ay militant dañoo jàpp ni rek président Macky Sall da leen wor ña sa des moom xam ne ni li mu wax mooy li gën te képp koo xam ne nag tànn na ko ngir uh, mu doon seen ab candidat ñoom nañ topp si ginnaawam jàppale ko ngir ñu am ndam si atum 2024 reportage bi ñu ànd si ak Mamadou Oumar Ba. première dame moom seetaanu fi discours bi laata muy tàmbali la dem waaye bi Macky Sall newee du nekk candidat mbir yi jaxasoo lool ñii di jooy militant bi nag mer lool ba bëti ni Macky Sall daf leen trahir. son pays. parce beneen militante itam ne moom leader def na choix bu baax. dañ ciy kontaan euh, ci ni président jël décision ñu ngi ko ciy félicité félicité bu baax tamit décision bi mu jël mooy bi gën parce que moom wane na ne Sénégal moo ko ñor euh, la mu waxoon ci la ci la ñëw mooy gor ca wax ja. léegi nag jubluwaay bi mooy présidentielle bu 2024 militants yi nag nee nañ dinañ ànd ak ki Macky Sall di tànn. président rek lañuy ñuy topp comme niñ ko ko yàgg te comme que coalition la ñu nekkee muy Benno Bokk Yaakaar ñoom mosuñoo pare te pareeguñu incha allah candidat ñu tegal nañu nañu topp ci ginnaaw moom président Macky Sall comme ñu fi tegal nañu topp leen ci ginnaawam bu soobee yàlla ci la ñuy topp incha lu ci ëpp ci ñoom nee nañ nag njiitu réew mi dugg na ci histoire Sénégal ñu bëgg sax delloo ko njukkal ñoom ñëpp jubali palais de la République. Mamadou Oumar Ba gannaaw bi président Macky Sall waxee nag kàddu yu bari jib na maa leen ko doon wax si njëlbeenu xibaar yi bokk na si ay kàddu yoo xam ni kenn yëkkati na ko mu di Abdoul mbay nekkoon fee élimaanu jëwrin moom nag dafa xam ne nii dafa am mbégteem xol gannaaw bi mu dégloo président Macky Sall ak décision bi mu jël tax ni itam mu daal di gisaat nit ki mu xamoon mu di président Macky Sall bi mu xamoon si atum 2012 ay kàddu abdul mbay Mbaye si jokkoom ak Amadou Sabar Ba discours bii nga xam ne discours Macky Sall euh, ci bésum 3 juillet 2023 am na solo lool te sellal na xol li ma ko doon faral di wax bu fekkee ne noppi indi na fitna booba wax jot na moo am tey te wax na loo xam ne wàccee na fitna bokk na ci li nar indi jàmm ci suñu réew ñu ko ciy ndokkeel bu baax a baax a baax mu doon itam discours boo xam ne ci dëgg-dëgg mi may fàttali Macky Sall ba woon muy fàttali discours bi nga xam ne bii moo jóge woon ci làmmiñam biñ ko falee ba noppi. dëgg la am na lu Sénégal soxla woon jëmale ko ci élection 2024 bii. ndax bu fekkee ne sax moom jàpp na xëy na am na ci droit. xam na ne Sénégal ñi ci ëpp. nanguwuñu loolu. te loolooy démocratie. da ngay nangu li majorité. bëgg te looloo am tey. loolu di benn. ñaareel bi. dégg nañ ko itam muy oote jàmm muy oote àndandoo diggante Sénégalais yi te loolu itam bokk ci li ñu rafetlu lool ndax barki Dembo njaay ca bi muy toog ak meeru benn Bokk Yaakaar li ñu déggoon def ñu xawoon a tiital ndax mu ngi doon oote sénégalais di xeex sénégalais. tey nag li mu ci wax nañu jàpp rek ne dindi na li ñu déggoon samedi mu des nag. ñu war a jëm ci élection 2024 dañu fexe ba mu doon élection yoo xam ne day doon inclusive maanaam ñëpp mën ca bokk dañu fexe ba mu doon élection transparente benn coow bañ ci am te musoon na fi am waaye nekku nekkutoon élection présidentielle muy élection législative bu 2012 dañ ko fàttaliku kon organiser élection bu ànd ak jàmm boo xam ne bii bu amee ba noppi ñëppay nangu résultat mën na ne Sénégal mën na ko bu boobaa suñu démocratie dañuy daal di nangu ne delsi na ci démocratie yi gën a am maanaa ci Afrique ak sax ci àdduna. ki fi nekkoon meeru Ndakaaru di Khalifa Babacar Sall yëkkati ay kàddu itam di rafetlu décision bi président Macky Sall jël. moom mi nga xam ni nag euh, moo jiite taxawu Sénégal di jàpp ni rek mooy li gën ndax dafa doon loo xam ni dafay suuxat jàmmi réew mi ay kàddu xalifa Babacar sàll ñu déglu ko. muy moment de communion et de prière te ñun ñëpp ñu bokk def ko te biñ koy def li ko jiitu woon doon moment d'épreuve xeex ay bakkan yu faatu ak lu rot donc ñëpp jàqoon ñëpp amoon xel ñaar ci ëllëgu Sénégal ak démocratie ñuy sant yàlla bu baax tey bi nga xamee ne président Macky ak quoi qu'on puisse dire, vient de prendre une belle décision. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Cette décision de ne pas briguer un troisième mandat délivre le peuple de son anxiété, de son inquiétude et des sombres perspectives qui se dessinaient pour suñu réew. donc ñu ngi rafetlu loolu. di wax nag ne challenge la pour classe politique sénégalaise. que wane ni la ñu xeexoon 2011. xeex ko ba mu ci 2012. ba kañ ñu toute l'année 2021, 2022, 2023, ces sacrifices-là n'ont pas été vains parce que c'est des sacrifices pour la démocratie sénégalaise. Donc li am solo mooy sénégalais wane waat na ni su bañ jotee ñoom ñëpp ñooy def say bañ parce que F24 amul force politique bu ci bokk li ko wundoon li mu doon wut mooy non à une troisième candidature mais mbetteel bu rafet la daal mbetteel bu rafet la gannaaw taxawu Sénégal parti démocratique sénégalais bu njiitum réew mi woon di Abdoulaye Wade rafetlu uh, kàddu yi nga xam ni njiitum réew mi Macky Sall yëkkati na ko jëm si ñàkk yootu ñetteelu mandat si élection présidentielle yi. jaara fa itam euh, dig daje askan wi rawatina ngay xam ni nag ñoo di seeni soppee fan yi ñu jëm di bës boo xam ne nag ñu ngi ci fas yéene samp seen mbër di Karim Meïssa Wade jëm si élection présidentielle yu vingt 2024 si yooyu élection itam waa Pastef di wéy di xam ne ni benn candidat la ñu am te mooy Ousmane Sonko xalaatuñu soppikoo ñoom nag euh, ñu jàpp ni nekkul ni président Macky Sall mooy tànn kan moo war a bokk si yooyu élection kàddu yi nag ki ko yëkkati moo di Daouda Ngom moom nag euh, mu bokkoon si suñuy gan démb bi ñuy waxtaanee gannaaw bi président mag Sall waxe xale bi di Papa Makhtar Sarr dafa demoon nimmiku ay mbokkam gannaaw ci ba mu nekkee ci ab biir ci réewum Sénégal gi dem na ca dëkk wu nu duppee fayee ko maa nga ca euh, funjuñ ca Ile du Saloum. foofe jot na fa fekk ay nit ñu ko sopp te teeru ko mu daal di cay euh, jaare saafonte ak ñoom ba noppi yëkkati kàddu wax ci la mu gis ci Sénégal ak Brésil jongante bi amoon seen diggante mu jongante xarito Sénégal tëcc ci Brésil mu wër àdduna wax itam la mu liggéey ca Tottenham waaye itam nam def ko ci euh, Coupe d'Afrique bii di war a xew ca réewu Côte kàddu yi mu yëkkati foofa nag ca dëkk boobee di faye ko kii di Abdoulaye Diagne di kenn ci correspondant yi spécial yi nekk ci desk sport bu RFM moo ko tatal est dans l'équipe. voilà waaw ci mbirum Harry Kane xam nañ apport bi mu am ci équipe bi. après nag li ñuy wax ci mbedd mi moom mën daanaka jàpp naa ne ay détails rek la xamaguma ndax day toog wala day des loolu di ci kanam raw li bët leen li moo di comme niñ koy waxee saa su ne rek moom son itamit ko coéquipier la boo xamee ni bu ma jege loolu la ci vestier yi ñun ñëpp daanaka sax ay frère lañu waaye dëgg la ni moom son moom daf ma sës rek te loolu itamit lu ma arrangé la ndax damay jàng lu bëri ci moom ndax ay conseil moom la dëkkee ak man daanaka sax moom moo ma jàppale ci intégration bi may amal ca Tottenham ba may door a agsi li jëm nag ci match bi nga xam ne doxoon na ci diggante Sénégal ak Brésil defe naa ni joueur bu nekk rêvé na jouer jongante yu ni mel malheureusement nag teewee mu ko waaye teewul toog naa ci sama kanamu télé seetaan bu baax a baax te itamit li ci biir bettu ma moo di ndam li ndax Sénégal mën naa dóor ku ne jamono ji ñuy wax kon ndam la boo xamante ni mënuñu leneen lu dul di rek félicité ñi nga xam ne ñoom ñoo ko taxawal Coupe d'Afrique des Nations nag mi ngi ñëw suñu kanam te motivation bi ñu amoon ci kan bu mujj bi moom la ñuy amaat foofee ca Côte d'Ivoire dinañu dem trophée suñu trophée dëgg la nag yeneen réew yu am solo équipe yu am fulla am doole dinañu fa teew ndax ñoom itamit li ñu am jamono ji moom la ñu bëgg waaye teewul dinañu xeex suñu bëgg-bëgg moom moo di yóbbuwaat ndam ñu wax si wàllu footballu réew mi Sénégal si ay bis bi jëm du am championnat Sénégal ligue professionnelle moo jël dogal bu ni mel ndax dafa ni dafa bëgg dabu armanaat jongante bu bokkoon si ñaar fukk ak euh, ñetteel bi journée championnat ñu waroon ko jàpp ci ñaar fukk fan ak juróom ci weeru soin si jamono yooyu daa amoon ay yëngu-yëngu ki taalip naak yu mel noonu ba taxoon ñu dàq ko nee nañu ko amal ci jamono ci euh, njeextalu ay bés biinu ne mooy asarek dibéer ji danañ jàpp benn ci bés amal ko beneen jongante ci wàllu Ligue 1 bi duñu ko amal loola nañ ko bëgg tëggal rek Eh, Pikine ñu eh, ko bëgg a tëggal rek équipe bu Casa bi mu laale ak waa Jaraaf bu Ndakaaru Ligue 2 ñoom dinañu amal seen eh, jongante si wàllub njaay ak njëndu joueur yi kii di Marcelo Brozovic moom itam dem na Al Nasr ca naar ya fu mu toll nii dañoo yor seen ay euh, million de dollars ak doro di ko fay nit ñi ngir ñu dem fa foofu xaatim na fa ab këyit ñu ne nag euh, koppar yu takku lañu ko fay ñu ni ko fayee ñoom Benzema ak ak Ngolo Kanté ak euh, Kalidou Koulibaly si wàllu handball lañuy jeexal ak Sénégal équipe bi di espoir bu wàlloo nekk ca të nekk ca Richard Toll ñoom ñu ngi woote wàllu la ñu bëgg mooy ñu dimbali leen ba ñu mën a matale seen yéene mooy fexendi ba ñëw ci première division bi waaye dañu jàkkaarloo ak ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu yëpp nag kii di euh, Mankalou Cissé nekk euh, ci euh, nekk seen président jot na ko tënk ci micro Mamadou Diagne. non on a eu des problèmes parce que pour ñu mën a dem à Saint-Louis il fallait que moi je me sacrifie amul benn autorité bu nga xam ni nekk na waalo muy mairie muy feneen bu nga xam ni jàppale na ma pour mu dem à part le président euh, euh, assure pour ñu mën a dem l'équipe bu nga xam ni mi ngi de 2 la doon def pour pour mën a def euh, dem D1 vraiment jaaxal nañu daal vraiment moi je comprends pas franchement man Macalou Cissé personnellement moi je me pose la question au niveau de la mairie de Richard Toll ban la ñu am avec le xam ne c'est le seul équipe valable nationale bu nga xam ni moo ay international vraiment jaaxal na ma vraiment suma me pose cette question à part ça nous avons pas un terrain bu nga xam ni valable pour l'équipe l'espoir du Waalo par rapport les basketteurs nga xam ne ils ont un terrain basket vraiment on souhaite que ni bu ñu bëggee l'espoir au niveau di Waalo mu dox vraiment terrain handball mun nañ ko def parce que nous avons beaucoup d'internationales yi nga xam ne fii lañ jógee ci espoir euh, dem l'équipe nationale di